wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat. maa sant yàlla mi bind sant sallallahu alayhi wa sallam mi tax ñu bind ñu waaye sant Seex Xaadim mi tax ñu am waaye jàll Seex Moodu Fadel bi nga xam ne mooy suñu biñ Sëñ Tuubaa taw si lépp Sëñ Tuubaa ñu ko sant baax a baax. bis bii waa Touba Ca Kanam laa woon ngir njukkal leen sant leen gërëm leen donte lot naa ci waaye ñoo xam wàcc yu ma leen ci ak kër wàcc yu ma saal wàcc yu ma fenn sama xol def leen sama jëm bopp ji te loolu ci yàlla ma sunu boom jox da ko liggéey bii bu dee bu sëñ Tuubaa nangu lépp loo xamante ni am nañ ko ci sëñ Tuubaa war nañ ko fay yàlla nañ ko ba ngeen doyal lu yeesu jóg ñu ko jox benn bis bi tawfeex ji amaat man bis bii ci laa gën a àdduna fukki fan benn ci jumaadu ula bis bii tim Cheikh Amadou Fadal ci la liggéey ngir Sëñ Tuubaa fay liggéey moom liggéey kon yett yëpp bu ne bu ngir sant ko yàlla sant ci loola bu njëkk bi mooy li ma leen wax léegi mooy woow ñoo bokkal liggéey bi ñu ñu yi jàpp ñu ci jàpp lañu ci liggéey bi ñu ànd ko ñoom moo woo leen sant leen gërëm leen xam ne yëg naa la ñuy def day wax ne liggéey bi ku sant yàlla ñu ñoo gën sant yàlla ndax àdduna li fi gàllankoor bari euh, nit ñi daa bari te loolu yàlla mi ngi ci musal gun ñu ñaan mu ngi ñuy musal bu njëkk mooy seq ni alal te xuloo wuleen ci xa ŋaayoo wuleen ci kenn déggu leen ci loolu jafe la benn ba seq àdduna muy muy jëflante nit ak nit te kenn déggu ci kenn ko ne ci ñun jël ngeen seen jëmm seen jot seen waxtu jox ko Sëriñ Tuubaa ànd ko ñun loolu muy rëy ci ñu may seere sëñ Tuubaa di seere malaayka yi ma bind ne sëñ ay gor a ngi nii ay jullit nga ñu la bëgg nga nii ñu bëgg sa liggéey baa ngi nii sëñ Tuubaa yow mi xam ne yaa ngi wax xaw a jëli seen daamu fii xidmati xam lu maaraamu fayal aajo murid yëpp rawati ñi nga xam ne bokk liggéey bii nag nii nga ñu taxawoo taxawoo ko liggéey sëñ Tuubaa bii te te te duñ ci dara ñun ngeen jël seen lépp ànd ko ñu gi sëñ Tuubaa bàyyi leen sëñ Tuubaa ñu ñaanal Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy jëriñ liggéey bi yàlla bàyyi na ko fi ba mu gunge ñu ba ca kanam kanam ñu ànd liggéey ba lépp sotti bañ naal yeneen ak yeneen yeneen yeneen tam ànd ko ñun te Sëriñ Tuubaa nangu jëf ji bu ñu jëf ji doomu aadama saa bu gisee jëm rek day yàqu kon yàlla yàlla nëbbu suñu jëf te nanguñu suñu jëf loolu maa ko ñaan sama bopp dina ko ñaanal benn gàllankoor bu nar a am ci suñu diggante yéen yàlla na ko saaboon dindi lu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy fenqal doomu aadama di mooy ci sa bopp yàlla ñu suñu bopp musa ci loolee bu kenn bu kenn gis ci boppam ci moroomam ci lenn ci ci ci ci ci ci liggéey bi ñu liggéey Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa képp ngeen nga ñëw su seema may du ma ne man mukk lu Sëriñ Tuubaa bis bu ne man lu Sëriñ Tuubaa bàyyi dama bisu keroog Sëriñ Tuubaa képp laa leen fas yéene du ma leen war mukk ci àdduna te lii damay ñaan Sëriñ Tuubaa bu téyel ñu ko ba bis ba nga xam ne fa la amee njariñ ma ñu jëbal ko Sëriñ Tuubaa seen kanam ñëpp ñu teew ko te ñaan yéen ñëpp yàlla ngeen gudd fan kenn ku ne fa mu bëgg àgg ci jëf yàlla ko sa borom may yàlla njëkk ndigal yàlla njëkk jekku ndigal amuru bi jëkk ndigal rek moo baax jekku ndigal nag yi ko tax a def ba bokk na ci ak wér ak ak am am koom am am ak am xel. kon ñett yooyu yàlla na suñu doon dimbalee parce que deux mille vingt-deux bii ñëw nañ nañ tàmbali bisimilah wala te àgg ci alhamdulilah rabbil alamin te fexee jéego yi ñu ñu mel ne tàmbali guñ dara te suñ tuwaa tey ñu ne gàcce loolu maa ngi leen sant bu baax dina gërëm te ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex sëñ tuwaa aw ma dara man Ahmadou rek la am ñu nii. jërëjëf rek la am kon nag Ahmadou dugal naa xadra sama xol bi dugal ci waatu waa wa jéemi ahli fii jéemi ahli afdi wala si fadli mm. fi laa nekk. jërëjëf man naa woo naa ñëpp. jërëjëf bu kenn am par la xawma ci kenn. bu ma kenn ñor ci dara. lu may may ubbi naa ñëpp bunt. Abi Mbacke daa nekk déedéet doy du ma ñàkkum fa la de Sëñ Tuubaa ko ne ma ci nax Sëñ Tuubaa du xam sama jàgg sëñ Tuubaa du xam sama sama sama sama sama samay samay samay problème yu yu maa ëpp problème ci àdduna nag sëñ Tuubaa da fexe moom seet man rek bi ma xasee duggal soo moom bi xasee dugg sama xol bi problème am bañ kenn wala may soxor kenn wala may ñaane kenn dara ñaw ma ñaw ma jot ci kenn nag ku la rek jàpp naa li nekk ci moo nekk ci yow te man lu baax rek nekk ci man kon sant naa góor jigéen sant mag sant ndaw di sant ci boole gi nu suñ borom boole di santaat yàlla ci jëmmi sëriñ Abib mii ñu toogal tey di santaat yàlla ci bis bu tedd bii nga xam ne yu baree bari daje na ci nga xam ne ci la sëriñ bi tey defe berndey ngërëm jagleel ko waa Touba ca kanam sëriñ Touba am na xasida gum bind goo xam ne da ko tudde jazaul ihsaani lil xuddaam payug waay rafetal yi ci ñi di ko liggéeyal bayit wu siiw woowu di waq di xawaa ijal ladina daamoo fi xidmati wa hablahum ma rawama ci la nekk waaye ba mu ko ubbi gannaaw euh, sant yàlla julli ci yonent bi salaatu da ca teg ne hada wa innil yawma zo ridai li haulaai wax jooju kon moom la sëñ abi bu wax tey yëgal yëg leen ne tey jii bisum gërëm la ak bisum ñeewant ak yërmande jëmee ko ci gaay yi wa zo mahabbatin li haulaai ak bisum cofeel jëm ci gaa gaañi kon loolu bokk na ci li ñuy sant yàlla li ñu war a sant yàlla nag moom du jeex ndax yàlla ay xéewalam mënee su koo lim wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha yàlla lim nu jagleel ci xéewal mënee su koo lim waaye xéewal gi gën ci gun am nun mooy Serigne Touba wajalilaayi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri manabat waa maskari noo ngi sant yàlla bu baax kon waaye di sant bu baax ñi ñu bokkal liggéey bi ñëpp santit sëriñ Abibu mi nga xam ne ni njiit ni lislaam an santaane nu war koo jiitee aw nit noonu la ànd ak ñun liggéey bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom da koo waxoon wala kunta faddan xalisal qalbi lan faddu min hawlik bu fekkonte ne daa defoon ku wow ab xol wala ku jàgg ko metti lan faddu min xawlik du nu nekk ñun ñi toog wër ko di jaxasoog moom ba boo fi boo fi ñëwee doon fi gan danga naan ñi dañoo yab sëñ bi te li ko sabab lépp du dara lu dul yërmande ak ñeewantu jëma ci ñi mu àndal fas yéene ànd ñun gindi ñu ci sëñ bi waaye gindi ñu ci liggéeyal sëriñ bi tàggat yaa man ala an zawjatin wa an walad utni wa ut jamia ala sal wajal ilaahi maskani maskani tuubaabat mislat mi jaayi xayri manabat wajal ilaahi maskani maskani tuubaabat mislat mi ñaari million yi murit lan soxla ay ca murit looy xaar ci bokk yow murit ngir jëme Tuuba ca kanam yow ñaari millions yi murit yuy joxe mille ci weer wu ne muy ñaari milliards weer ne mooy jëme Tuuba ca kanam buñ ko defee ci at mu ne bisimilah Abdou xam naa président wax ju xaw a jafe lay doon ndax kàddu cant kon ñi ngi sant ñi ngi sant bu baax baax daal xam naa luñ mën a wax rek ak cant rek la ñuy wax sëriñ bi noo ngi lay sant ñoo ngi lay ñaanal yàlla mu yàggal la fi noo lay ñaanal nga yàgga jiite mbooloo ndax ni ma ko waxee léegi qualité yi nga xam ne moom la ñuy jiitee mbooloo qualité yooyu yëpp daje na ci yow ta mooy jikko te yoon bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom jikko dong la ko tagge woon te mooy sëriñ bi tàggatoon ñi mu àndaloon muy rogalaat ba agsi ci ci ci ci yow mii nga xam ne tey yaa ci suñu kanam ñun ñi nekk fii ànd ak yow liggéey bi dey njabootug sëriñ bi yaatu na kenn ku ne am na foo féete waaye li nga nu may ci suñu bopp de xam nañ ko bu baax teg jiit ànd ak gi nga àndoon liggéey bi wàccee sa bopp ba jaxasoog ñun suba ngoon guddeeg bëccëg ñu mën a toog fii di wax léeg-léeg ba suñuy kàddu di jóg waaye loolu yëpp sa yërmande ak sa ñeewante ci mbooloo mi tax nga nangul nu ko waaye nag dafa delluwaat ci aay bi ma tàmbali woon léegi te mooy ba mu waxee ta kunta fasan xalisal xal bi lan faddu min xawlik fan fanhum la ci teg kon sëriñ bi fan-fan am naa jooju ñu doon wax noo koy ñoo koy daa noo koy taapaan ci yow te mooy nga di dinu jéggal jamono bu nekk ci manque-manque yi ñàkk a rafetu jikke gu nekk ci ñun ñàkk ñàkk a mat gi ñàkk a doy gi waaye ndimbal ak yërmande gi tax nga woote liggéey bii te ñëw ñu ànd kook yow te mooy pas-pas ak fa yéene liggéeyal sëriñ bi képp tax koo jóg ndimbal loole ak yërmande joojee nga nu yiire noo ngi noo ngi yalwaan nga wii duñu ci yiir la ca toppaat tamit musaawara musaawara bayna na te mooy wasaawirhum fil amri loola tamit yaa ngi ciy dox suba ngoon guddeeg bëccëg moo tax jamono bu nekk sa saal bi duñu jóg ci waxtaan ak yow lu jëm ci liggéey bi te loolu mooy li nga xam ne moom mooy ndigalul sëriñ bi la ca topp nag mooy xasmu te mooy ak dogu saa su amee rek la cay topp ay ay ndam lay doon te Touba ca kanam ba mu juddoo ba léegi ci loolu lay dox mooy bokk waxtaan tënk daal di doog dogu nag wakkilu ci yàlla ànd ak bi te dox te loolee mooy mooy dëgg-dëgg Touba ca kanam muy nag mbooloo moo xam ne ni nga ko waxee bari na ci ñun ñoo xam ne de xay na ci liggéey bi dëgg dëgg nag ci la ñu mas a liggéeyale sëriñ bi soobu ci dëgg-dëgg liggéeyale sëriñ bi waaye nag na ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu ba nëbb ñu jëf ñu ni ñu koy waxee ndax léeg-léeg dafa dañuy faral di wax naan Touba ca kanam de yéen li di liggéey dafa mel ne xamu leen ko ma ni ko sëriñ abi buy waxee de buñ ko defee noonu yàlla buñ ko xam yàlla buñ xam li ñuy liggéey nan ñuy dox tey dem rek te te te ndax imalu fa sayara allahu amalakum jëf moom da ngay jëf rek yàlla dana gis li nga jëf ak yonent bi ak jullit ñi li sëriñ Touba jàngale ne isil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani xaysu qasada ab murid moom fu mu mën a jublu fu mën a jublu la war a doon yitteem lenn képp la war a doon te mooy sàkk ngërëmal suñu borom tax ci sàkk ngërëmal suñu borom ci la ñu yaakaare yërmandeem te yërmande yàlla ku ko am dajale nga lépp qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun euh, kon noo ngi noo noo noo ngi noo ngi santaat yàlla di santaat sëriñ bi di sant sëriñ sëriñ Touba di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi waaye di gën a sant Serigne Abibou ci taxawaayam bu am solo bii nga xam ne moom la jiitee mbooloo mi Serigne Abdou Lahad moom Serigne Abibou mi xam ne moom la toftal ci moom la toftal ci boppam ñoo ngi koy jaajëfal moom bu baax a baax di ko sant di ko gërëm ci ab taxawaayam Alaaji Serigne Tako Mbàkke ku ne xam ne taxawaayam akuk defereem ak jàpp gu mu jàpp Touba ca kanam ak waa Touba ca kanam waaye di sant bu baax a baax a baax tamit di sant bu baax mboolem soxna yi Touba ca kanam euh, jiital jiital ci soxna Bintu Mbàkke waaye nag bu ñu ñëwee ci euh, jàmbaari Touba ca kanam yi sëñ bi mooy ñi nga xam ne ñooy nekk ci terrain bi jamono bu nekk moo xam ñi nekk ci lamp yi lañ moo xam ñi nekk ci mbënd mi moo xam ñi nekk ci ci ci ci defarim yoon yi moo xam ñi nekk ci euh, hôpital yi moo xam ñi nga xam ne ñi ngi ci massification ndax jamono ji ñoom suñ baaraange ca terrain bi di liggéey ñoom ñëpp sëriñ bi noo ngi fedd li waat sunu jaayanteeg sëriñ Touba di la ko seedeel di fas yéene sax ci liggéey bii di ci liggéeyal sëriñ bi te tey sàkku ci yow nga ñaanal nu nu bañ cee wut len len lu dul ngërëmal sëriñ Touba noo ngi lay sant di la jaajëfal ci bis bu tedd bii nga xam ne sa bisa am am nga ci am nga ci am nga ci am nga ci wet am nga ci wet ndax eh, ci nga feeñ jamono tàmbali ci liggéey liggéey liggéeyal bi noo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool yàgg koo teewe yàgg liggéey sëriñ bi sëriñ bi yàggu laa nangul eh, bis bii nga xam ne mooy bis bi nga xam ne ci la sëriñ Fallou ab liggéeyam noppi woon moom it mu dem ñoo ngi naan suñu borom mu gën ñu koo fayal ba noppi taas ñu ciy barkeem ak yërmandeem xam naa kàddu yi mbàkke dëng na jaaxasoo na waaye ak lu mën a xew rek kaddu yu rek la ak kaddu bii di ñaan maskanitu baabaat misrasmi bi jaayi xayri ma nabaat